salaamaaleykum mbokk internet u ñu ngi fii tey jii ci Wakaam ñëw ziyaara ci sunu baay sunu kilifa euh, di tudd Mouhamed euh, Nabi Guèye bi nga xam te ni euh, mooy xalifa sunu maam Seyni Guèye bi sos wala boog sanc fii nga xam te ni mooy mosque de la divinité nga xam ne sur le plan international c'est une grande bi bien reconnue mu nekk jàq wala jumaa joo xam te ni bu ànd ak kéemtaan ci nañ ko sosee ak euh, nu mu dikkee boroom naka suñu boroom euh, wane yoon wi ba mu ba mu sanc ko foofule te mu nekk béréb bu bu mythique béréb bu bu bëri bu bëri man te muy place ñaan surtout euh, ñu ngi fii fii ci këram di ko ziar di ko di ko nuyu sëñ bi ñu ngi lay ziar Guèye. ñu ngi lay fay Malick bu baax a baax si di leen wàccee ku si nekk sa wàccukaay macha allah. Euh, daanaka loolu mooy moo nekk euh, ëll bi tey euh, di dal ñëpp di ñaan yàlla tamit liggéey bi xam ne moo nekk suñu kanam yàlla mottali ko yàlla jàppale ñu te taxawuñu si lépp loo xam ne am nañ yéene soobu si incha allahu rabbi mu mel ni tey waxtaan bi yëpp ak oote bi oote jàmm la jëm si bis boobu bu màgg bisu jullit ñi bésu askan wi ak bésu Sénégal tey bis bi ñuy màggal mooy commémoration de la descente spirituelle de moo Mohamed Séni xalif de Dieu su terre bâtisseur de la mosquée de la divinité yaakaar naa ne tey àdduna réeréew ñu jumaa ji ñii gis nañ ko si baatin yàlla waleen ko ñu koy wër ba yëgse ñii jaar nañ fa am lu ñu yëg ñii ñu tettal leen ko tamit si wàllu ñaan ñu fay dem di fa jaamu seen borom subhanahu wa euh, di fa sujootal yàlla di fa ñaan daanaka tey sooy seet réew mi waxoon naa ko ci jamono yi passé euh, jot nañu toog waxtaan parce que soo xamul foo jëm dangay ngay dellu ci alxuraan ak sunna donc tey dañu nekk ci ay perte de repère perte de valeur valeur yi xam ne te fi tey moom lañu lislaam jox mu nekk ay valeur yu sell wàcce ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu bi yonent tey valeur yooyu moo dem ba commencé disparaître di dem tey suñ ku dund tey am na loola naxari sa xol parce que li la naxari mooy fi ñu war fii xale yi waroon a jëm si orientation euh, jëmuñu fa ba tax na coono boobu lay tey moo nekk coono àdduna Mawlana Mohamed ni commémoration bi descente spirituelle dinañ si ñëwaat parce que la descente spirituelle aussi fokk ñu leeral askan wi lu waral descente spirituelle boobu parce que doone descente spirituelle rek toog te nit ñu comprendre ñu la descente spirituelle bi ñuy commémorer descente boobu dafa am jaamu yàlla bu ñu yéegal ñaareelu asamaaw moo xam Sini yàlla yéegal ko ñaareelu asamaaw am yéene wàccee ko moom ki ñu yéegal lan la ñu yéegal leer la ñu yéegaloon leer googu kan moo ko solo woon muy leer yonte instant Isa ibnu Mariama moom lañu soloon leer gi ba yàlla dogal li muy dogal ci moom yàlla na ko dinaa yéegal sa leer à 33 ans dinaa ko yéegal leer googu su ma ko yéegalee nag dinaa o jaam yi dinaa oo jaam bu ma neex bu ma neex man yàlla yéegal ko asamaaw ñaareel bi fa leer gi nekk sol ko leer googu muy leer gu yonent yàlla Isa ibnu Mariama am yéene wàccee ko yaakaar naa ne tey alxuraan ñëpp d'accord nañ ne jëmmu instant yéegul ku ko wax da ngay wax lu la neex leer moo yéeg te leer gi ba ko yàlla yéegal tamit wax na ko si biir alxuraan wa ma xataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum reyuñu ko daajuñu ko walakin shubbiha lahum dañ ko yéegal damay wax toujours ne nit ñi afala taxiluuna alxuraan daf koy andi toujours ne ndax yéen dool ne xelu parce que borom xel yi da alxuraan di waxal xel tey nanguwul nanguwul ñu ne jëmmu instant yéeg na xel du ko nangu parce que asamaaw tey ay leer ñoo fay ne jëmma nekku fa su amoon benn jëmma buy dem asamaaw des fa jëmm yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam lay doon te ñëpp xam nañ ne yonent yàlla euh, euh, euh, yonent bi alayhi salaatu ñëpp xam nañ ne ñu ngi ko jën ci Madiinatul wara kon leer yi xam ne tey moom la yàlla di yéegal si asamaaw gannaaw suñu bakken leer googu la yàlla yégaloon si Insa ibnu Mariama am yéene wàccee ko parce que leer gi fokk ku koy doon mas naa ko wax ci benn jotaay soo seetee rek les remaniements ministériels yi xam ne moo xew ci àdduna entre les ministres sortants et les ministres entrants passation bi yaakaar naa ne mu ngi am chez le ministre sortant su ñu dajalee chez le ministre sortant euh, ak le ministre entrant foofu la passation de service bi am de fonction léegi ñaari yeer ñaari leer yi tasee wu ñaareel te benn leer bi ñu war ko wàccewaat foog ñu yéegal ki xam ne mooy doon na leer googu si ñaareelu asamaan parce que leer gi kenn du ko doon si suuf voilà kuli ay parce que leer gaa ngi si kaw. yàlla mooy présider passation boobu ak malaaka yi doon si ay seede bés boobu la ñu màggal muy wàccite gi wàccite gi tamit bi mu amee am na lu boroom wax. parce que tey weerante yi dafa bari si jamono istilaaf yi tamit dafa bari si jamono ñu koy oote tamit bari na si jamono wante tey jamono mooy leeral mbir moomu kenn ku ci nekk ak sa dalil léegi nag ulamaa yi ak boroom xam-xam yi ñoom ñëpp dañuy gëstu loolu nan nan lay demee ëllëg parce que borom leer gi su wàccee waxax nit ñi ne leen man yonente laa dinañ ko weddi allah kulli ali leer su wàccee si suuf waxax nit ñi ne man yonente laa dañ koy weddi parce que yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaar na fi si diggante bi ba dem leer gi nag su wàccee wax nit ñi ne leen man maay xalifa yàlla ci kaw suuf inni xalifatulaay fi addi boroom xam-xam yi tamit mën nañ ko gëstu loolu parce que boroom xam-xam yépp tey ah ay hadis wàcc na si yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu dëgëral ne jàmm bu xalifa yàlla lay doon si kaw suuf moom lay wax nit ñi donte ko sax leer gi nga mu doon leeru yonente la wante leer googu tamit su wàccee ax ah, nit ñi daf leen di wax ni ini xabitulaay fii ardi foofu la jamono toll mu doon léegi ban mission lay am si kaw suuf gannaaw su wàccee yàlla dina ko jox mission dina ko oteloo dina ko ooteloo si taxawaa te du dégg baat bi rek yàlla daf ko koy bindal si asama muy xool muy taxawaa mu bindal ko taxawaa ooteel si taxawaa dina ko ooteloo si njub dina ko ooteloo si sellal ñetti baat yi la ko yàlla jox na ko ooteel si ñun yàlla dinañ la jàppale si sa biir mission bi nasu mi ne lay wa fatxun xarib wa bashiri muminin dinañ la jàppale hôtel léegi soo ootee ba dem ñu tëxamlu la man yàlla dina ko diggaale ñoom comme ni mu ni mu doon diggaale ax ay nawleem yi xam ne ñoo ko jiitu woon si jamono ku yàlla mos amul ki benn yonent bu yàlla mosa ooteloo ñu gàntal ko te yàlla diggaale ko diggaalewu ko askan wa ala li alin noonu lay demee ni mu doon demee demb noonu lay demee tey Mawlana Mohamed Sini ba ko yàlla ooteloo tamit oote na de 1977 à 2007 le premier appel le 6 mars 1977 si la génne woon gannaaw ba mu tëjoo sous forme de de retraite pendant 14 ans si la génne wax fi mu jaarax yàlla ba yàlla na ko ooteel mu génn le 6 mars 1977 en 2007 la wàcc liggéey au Maroc oote boobu bi mu jëkkee oote wakaam dafa génne xale yi si lëndëm gi ñu nekkee woon yuxrijukum mi zulumaati ila nuur génne xale yi si lëndëm gi gi ñu nekkee woon booba te xale yi xale la am lu daa def bi mu ñëwee yorul yett yorul dara booba wakaam ma ngi pacte lii lii lii lii lii askan wi di maanaam takk mag ñi dajaloo ne lii bu mu fi amati lii bu mu fi amati lii bu mu fi amati mu ñëw ndeysaan si kaddoom yàlla barkeel kàddoom génne xale yi si lëndëm gi ñu nekkee woon léegi yamul foofu moom yàlla wàcceel na ko juma na ko jumaa jooju tamit dinaa la ko jox dinaa ko wàccee ci sa jëmm awlan àdduna ba muy sosu ba muy sosu xalifa yàlla moo fi nekkoon muy suñu maam aadama yàlla wax ko ci alxuraan naka def nañu la nga ngay suñu xalifa si kaw suuf muy maam aadama moo ubbi àdduna néeg bi ko yàlla wàcce woon tamit moom maam aadama pour mu jaamu fa yàlla jéggalu boromam subhanahu wa taala ba bakkanam rotaat ëllëg ci ko dugalaat ko àjjana parce que àjjana kenn du fa tooñ dafa tooñoon ba ko yàlla tere naka dafa loo neex si biir àjjana mais garab gi bu ko laal ba sanction bi ñëwee tamit ñu wàcce ko kon tey axaru zaman bi ñu nekk que xalifatulaay fi addi ubbi àdduna beneen xalifatulaay fi addi feeñaat si jamono oote si martaba boobu du ñëpp ñooy xalifa yàlla si kaw suuf du ñëpp parce que daraja yi noonu la ko alxuraan waxee foo xool daraja dañu gën a kawante si daraja boobu ba tax na kooku de am ndigal oote du tey suñ la waxee ne tey maanaam ñi nga xam ne tey ñooy génnee ñooy génnee euh, di digle lu baax di tere lu bon ay xalifa yàlla lañu su ko su ñëpp a nekkee si jam si si anam boobu ne leen óor ne am na ñoo xam ne am na koo xam ne am na ndigal am na ndigal euh, digle lu baax di tere lu bon gis nga ki am ndigal si yàlla ki am ndigal lay wax si yàlla di tere ak santaane di digle lu baax di tere lu bon ki am ndigal si yàlla ku mat bàyyi xel la parce que jaam boobu su ñu demee jamono la mu tere parce que waxuma sax diggal mais la mu tere te yàlla tere ko alxuraan tere ko la mu tere suñ ko bàyyi suñ ko bàyyiwul yàlla day day wane boppam si jamono moo waral coono bi nit ñu sonn nañ metti na si ñëpp nekkatuñu en sécurité la yàlla doon tere yëpp nit ñaa koy def jël lu jàmbur nit ñaa koy def wax lu dul dëgg nit ñaa koy def njaaloo nit ñaa ngi koy def sàcc rey nit nit ñaa koy def wa kaza ak yeneen ak yeneen bari na tey fan la nit ñi jëm la yàlla doon tere ñu koy def kon fu ñu jëm mu mel ni tey beneen aspect bi mooy xale yi xam ne tey fi tey mu mën ni dañ leen xabtal mu mën ni dañ leen xabtal seyaatiin yi mi ne jinne wa insi feesi seen jëmm te yàlla ne man duma bokka seytaane benn jëmm benn xol leenaa si mën a nekk ma feese xol bi man yàlla seytaane génn abal ma mbaa seytaane feese xol ba ma génn man yàlla te yaakaar naa ne tey lii feeñ dafa mel ni seytaane feese na xol yi su feesee xol yi nag yàlla day génn du fa nekkati moo tax xale yi li leen di animé si seeni xol góoma ne ñoo ko tey góoma ne ñoo ko tey tiil tii alalu jàmbur la nga lakk ko tiim nit mbaa nga jam ko mbaa nga leneen ak leneen di taal di yàq te alal ji ñu yàq ñoo ko moom taal ay bus ak yeneen ak yeneen mais tey suñu xamoon man li ma xam te Mawlana Mohamed Sini xalif de Dieu sur terre wax ñu ko fondateur de la mosquée de la divinité wax ñu ko su ñu xamoon ne Sénégal gii su le plan spirituel lay wax je pèse mes mots sur le plan spirituel destination la su le plan spirituel parce que loolu la yàlla dogal ngëneel nag mu ngi si loxo yàlla bu kenn yaakaar ne ngëneel mu ngi say loxo yaa ko moomal boppam mbaa yaa yi féetali këru diine bu la neex inna akramakum inna allahi ataakum a ko andi ki gën si yéen mooy ki gën a tedd ki gën a ragal yàlla ku si góorgóorlu di nga àgg fa mag ñi àgg fa mag ñi àgg laay wax de ku góorgóorlu sa diggante sa boroom si bàyyi la la yàlla tere lépp taxaw si la la yàlla santaane lépp muy julli di asaka di zakat te xam ne ñu ngi si jublu nii macha allah di shahru ramadan ay yeneen ak yeneen xayraat yëpp mu doon ay fadila ku si taxaw noonu di nga àgg fi nga bëgg ak àgg sa diggante sa borom wante ku si sàggan nag eh, yàlla wal na gannaaw tey doo mën a ñaan mu nangu gis nga li may wax mooy su fekkoon ne nit nit nit nit mel na ni mu waroon a mel du dem si sëriñ na ko ñaanal ma xanaa nitu yàlla xanaa nitu yàlla ngay mën a dem si moom na ko ñaanal ma mais ku dul nitu yàlla soo ma soo tàllalee sa loxo ay yenn sëriñ yi da ngay sonal sa bopp ñaanal sa bopp sax moo gën a gaaw wallahi ñaanal sa bopp sax moo gën a gaaw parce que tey loolu la loolu la loolu la moo la naa moo xam ne siini di tabax si ruu yi ñu jubboo ak yàlla loolu la wax dama bëgg ngeen jubboo ak yàlla dama bëgg aussi ngeen nekk xaritu yàlla la mosquée de la divinité yàlla mi ko wàccee xam ne ne jumaa ji yàlla ko waajal boppam préparé ko boppam mu doon plan encore une fois je pèse mes mots tey seet leen ko listixaar leen ko wéet leen ak seen boroom ngeen laaj ko la mosquée de la divinité bi may dégg ndax yaa ko wàccee ndax yaa tabax sa plan bopp wàccee ko laaj leen ko yàlla ndax Mawlana Mouhamed Seyni tamit lii mu ne yàlla yaa ko yéegal ñaareelu asamaaw laaj leen ko yàlla yaa ko wàccee laaj leen ko yàlla lii mu ne mooy xalifatul laahi fil ardi di euh, xalifa yàlla si kaw suuf laaj leen ko yàlla tey ku dugg dans le système de jaayil yow la neex wallaahi yow la neex parce que jaayil amatul donte que sax xaj na ñenn ñi xamuñu wante tey matukaay yëpp pour seet pour gëstu sa diggante sa borom mu ngi fi gëstu leen ko gëstu leen ko parce que la mosquée de la divinité tamit loolu moo tax mu wàcc pour sauver le monde moo tax yàlla wàccee ko pour sauver askan wi moo tax yàlla mais lu lu tani plan jumaa yàlla confectionné plan bi mu doon benn plan architectural yàlla confectionné plan bi ba plan bi sotti mu jox ko malaaka yi ne leen wàccee leen ko mu doon leer lépp di leer la mosquée de la divinité bi muy wàcc lépp leer la lépp leer la looloo tax muy rayonner à travers le monde soo fa tiimee soo fa duggee tamit muy rayonner à travers le monde ngay ko sentir sa xol cette lumière divine spiritualité boobu lay dund la mosquée de la divinité ak képp ku fa dem ak képp koo xam ne tiim nga ko mbaa dem nga fa di fa jaamu yàlla waxuma ngeen bàyyi seen juma li ko sang bi waxee bu leen bàyyi seen juma muk bu leen ko def bu leen bàyyi seen juma wante na ngeen ko boolee si seen si seen itte la mosquée de la divinité loolu sang bi wax boole leen ko si seen itte fexe leen ba dont ka ñaari rakk la lii la sang bi digle bi muy dunda nee na fexe leen ba dont ka ñaari rakk la ngeen julli fa ñaari ràkk ndax ëllëg ngeen am lay ëllëg ndaxte ku dem si yàlla yàlla ne la wàcce woon naa juma looy wax mas nga fa julli looy wax ku dem si yàlla yàlla laaj la ko looy wax mas naa fa julli am nga lay kon foofu la ñu toll oote bi nag loolu rek la li ñu yéene suñu bopp la yéene askan wi ala alin li ñu yéene suñu bopp la yéene askan wi yëpp uxib li naasi maa yuxiba li loolu la hadiisu yonent bi alayhi salaatu li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko say say nawle ndax doo yéene sa bopp lu baax yéene keneen saafaan bi lu uteex mbaax moo tax ñu sonn si yéen du dara li oote bi yëpp bi sanga bi dund oote bi yëpp loolu la man mi fi toog di xalifaam sama oote bi yëpp lool la sama coono tamit lool la bëgg nit ñuy jariñoo seen xel afala taxiluun fu leen neex dem leen fu leen neex dem leen am leen seen i tarixe bopp am leen seen sëriñu bopp jël leen seen idaaya lii la sang bi wax bi muy dund seen idaaya bopp jox leen ko seeni i sëriñ seen toolu sëriñ dem leen ngeen bayi ko seeni gàmmu dem leen seeni kër yi sëriñ ngeen gàmmu yi man ngeen sopp ma ngir yàlla parce que man yàlla dafa digle dafa santaane ngeen sopp ma yàlla dafa santaane ngeen sopp ma lii la sanga bi waxu leneen tey leen seen dërëm man j'étais banquier banquier banque laa doon liggéey BNDES ñi may dégg xam nañ ne BNDES laa nekkoon banque masuma laaj benn dërëm masuma xëy mu ne ma may ma may ma dër benn dërëm ma def ko sama dépense masuma laaj benn dërëm tamit na ma sama courant coupé nañ ko mbaa sama courant laa bëgg a fay masuma laaj benn dërëm mba sama ndox nii laa dundee ak moom nii la askan wi dugg dundee ak moom ba mbooloo mii mu sos masu si laaj kenn ku am sa xaalis nag soo neexee nga may ko bi mu tabax jumaa ñi tamit noonu la géré la mosquée de la divinité masul juwaale poos yi poosu yàlla parce que juma ak jàkk dañ ko askananu yàlla ala kuli alit mbokk yi ñu ngi leen di owaat ci bés bi samedi vingt cinq ramadan la ñu ngi si biir ñu fekk incha allah si Ramadan si weeru koor wi neuf heures la ñuy commencé jàng kaamil yi euh, suñu demee ba trois heures si la waxtaan wi tàmbali dix huit heures au plus tard ñu arrêté ñu yeewi ñëpp am na ay ndogu ndek yoo xam ne préparé nañ ko ba pare si dal yeex yëpp ngeen ñëw ñu bokk ak yéen teraanga boobu ala kuli alin ñëw leen ñu bokk ak yéen teraanga boobu encore mosquée de la divinité ak oote sang bi na ngeen jàpp ne yàlla subhanahu wa lu ko neex def wallahi lu ko neex def si jaamam lu ko neex def si jaamam bu leen jël ay ngëneel rek daal di ko daal dugal si këru diine yi ne ne ne ngëneel fa la yem wallahi wallahi ku def loolu rek juum nga ku xalaat ne ngëneel mu ngi si kër këru diine sàngam juum nga du demee noonu kon ana yàlla mii moom ngëneel te mu ne maa ngi sama loxo maa ngi maa koy maa koy maa koy téye sama maa koy jox ku ma neex baax moom ala kuli alit baax na bi muy moo moo Mawlana Mohamed Seyni dem na seeti kilifa diine yëpp yëpp yi nekk Sénégal à l'époque dem na seeti ji leen laaj leen ñoom ku si nekk dem na si ñoom wax la tamit mission am wax la tamit ne xale yi seen taxawaay tey pour ñu jéem a jaar si yoon njub mooy doon suñu tem salaamun ala man yi ittibaal xuddaa mooy doon suñu tem salaamun nag jàmm la mu ngi si képp ku topp yoonu jub njub gi nag bu leen sonal seen bopp dinaa ko waxaat fii njub gi bu leen seen bopp njub la par la force ku jubul doo amati jàmm yàlla pare na si moom laa doon wax jamono yële passé waa OFNAC sur la corruption waxtaan nañ si lu yaatu si la corruption tey ku topp njub di nga am jàmm parce que loolu moo lay permettre tey alal boo moomul nga bàyyi ko fa suñu ko dénkee tamit nga bàyyi ko fa moo lay permettre tey nga tenir une comptabilité propre et saine cette comptabilité des deniers publics tey amul malversation il faut que tey ñu jàng jub jub tey soo demoon dans l'état saoudien seen charia loolu la ku sàcc ñu daga sa loxo nga sàccaat ñu dagaat benn tànk bi mu andi la benn déséquilibre tey dootoo mën a daw dootoo mën a jël tax na ba tey gis ngeen ne tey soo duggee duggee dans une boutique tey ak fu mu doon en Arabie Saoudite nga dégg ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah bàyyi nañ la fa dañu xëcc rido bi rek dem asalaat dem nañ julli ji soo andoon ay maletu million tamit di waxale or dañ la fay bàyyi dem julli ji tey dans ce monde là personne n'ose surtout au Sénégal mais personne noos nga jël sa alal teg ko si biti de bàyyi ko fa dem julli ji ni ngim ces occasions la am la xale yi am di dugg si boutique yi di toj di jël alalu jàmbur yi tey njub amatul ñooñu jubuñu suñu juboon dinañ ko fa bàyyi te xamuñu soo jëlee alal ju lewul tey soo ko lekkee lan naar yi wax aklu naara mooy loolu safara ngay lekk safara ngay lekk soo ko jëlee nga tabaxe ko nga tabaxe ko sa kër kër googu loo fa jaamoo yàlla yàlla du ko nangu parce que c'est c'est c'est c'est de l'argent volé de l'argent illicite nga jëne koy yére bëgg a jaamu yàlla yàlla du ko nangu yàlla def na yére yi moom fu mu fa mu jógee baaxul kon nag nañu sellal suñu jëf li la sang bi oote le vingt cinq la incha allah incha allah na ngeen teel ñëw nag parce que ramadan lay doon xaj na euh, ku ñëw na ñu ngi ñaan ku ñëw andiwaale say yére yu weex parce que place bi tamit dafa sell c'est un choix divin le site là bi yàlla abriter la mosquée de la divinité gannaaw ba mu ko waajalee ba wàcce ko sur ce site là euh, site bu bu ñu tànn la loolu tam mu doon kéemtaan mu doon kéemtaan encore une fois je dis que merci à tout mais euh, bu leen ko weddi te seetu leen ko yàgg naa wax ne bu leen ko weddi te seetu leen ko seet leen ko ba mu doy leen ngeen di soog a weddi su amee lu óor ni am na foo leen ko teg seen diggante seen borom lay wax waxuma diggante nit seen di déedéet waxuma diggante nit mbaa ay këyitax mbaa ay téere waxuma loolu de parce que lii dafa nekk baatin alxuraan si baatin la wàcce kenn na fekkewul ba alxuraan di wàcc si yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn na fekkew ko mboolem tey yonent bu ñu soloo kenn fekk ko ñoom la ak seen borom subhanahu wa si baatin la jaar yépp si seeni nelaw la ba alxuraan di wàcce tamit noonu la wàccee yonent bi day yeewu di bind si diggan nelaw yi tëddaat ba alxuraan wàcc ba jeex noonu la téere bi wàcce kenn gisul téere bi nii jaxlataan mu jógee asamaan di wàcce amul riñaan riñaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tamit noonu riñaan na ko kenn fekkee ko yëpp si baatin la tey naka la nit mën a weddee baatin nit ne juma ji wàcc na si man nga weddi ko nan la ko nit mën a weddee te fekkee loo tey ba ko yàllay def su wonte dëgg kon jumaa ji tey duñ ko tàmbali mukk le vingt mai en 92 lañ ko tàmbali travoy yi le 1er octobre 97 lañ ko inauguré maam Abdoul Aziz si dabaax ma waroon na ñëw def inauguration bi jotul ñëw muy ñu yonni doomam moo ñëw keroog le 14 septembre de la même année le 14 septembre 97 si la maam Abdou wàccib liggéey le 1er octobre 1997 si la ñu jumaa ji yaakaar naa ne le 20 mai 92 ba euh, le 1er octobre 97 cinq ans cinq mois moom la jumaa ji def ñu inauguré ko ba tey ñu ngi fay julli su woon si dëgg yàlla weddi na ko su woon ci dëgg yàlla weddi na ko bu yàgg taw baa ngi fii ngelaw laa ngi fii géej gaa ngi noonu si boor bi foofu ay xeer la woon yaakaar dañ yaakaaroon ne sax tey du mën a dem liggéey xeer yu bari mais wallaahi laa la wax bañ koy liggéey tamit fekk ju fa xeer ci suuf kéemtaan la saison des pluies lañ doon liggéey ak saison sech noor nawet jaxaratan ndox mi su ja su jaaree si si montagne bi di wàcc ax benn puissance bu am doole mais ndox yi ndox mi day daf may dañ koy dévier mu dem vers la mer ndox yi dugguñu si pax yi si dee yi ñoon gas su ko ñëpp weddee nag te yàlla weddee ko amul solo loolu la bëggoon wax mbokk yi ngeen baal ñu ax bu baax su leen déggee sama kàddu tamit xam ne sama yéene moo tollu foofu yéene ñëpp jàmm jàmm jooju nag jàmm dañ koy dox dañ koy wax kenn du toog seen kër rek ne jàmm jàmm déet il faut que ñu am ay acteurs dañ koy wax dañ koy dox ñun nag suñu wax mooy loolu jàmm ji kat ne si ñëpp tënku ala kulli aliin fii wallahi su leen xamoon Sénégal gii li yàlla moo Mawlana Mohamed Sini bâtisseur de la mosquée de la divinité en tant que de en tant que xalif de Dieu sur terre si destination Sénégal sur le plan spirituel euh, yaakaar naa ne kon tey ñëppay daw ñëppay bàyyi li ñu doon def su su su lu naxari yàlla mbaalu bon suñ ko xamoon dinañ bàyyi lépp lu ñu doon def si lu lu bon mbaa lu naqari yàlla c'est dommage que xamuñu ko cette spiritualité est là destination la wallahi destination la la différence avec la Kaaba lii mooy différence bi avec la Kaaba Kaaba dafa Kaaba gi dafa nekk jubluwaay dafa nekk nekk orientation mu doon xibla mais la descente de la Kaaba ah la descente de la mosquée de la divinité benn la du ñu ñaar benn la wallahi benn la suñu nee ba si kanam di ngeen xam lu tax yàlla wàccee mosquée de la divinité fii si saw jant parce que neexul wax xaj soo ko waxee sax am ñoo xam ne duñ ko gëm wallahi suñ soo ko waxee am na ñoo xam ne duñ ko gëm waaw ndax yonent bi ndax yonent bi moo ñëwaat si saw bi am déet gëstu leen loolu su fekkee ne yonent bi moo ñëwaat si saw ngeen xam ne kon kon kon la descente de la mosquée de la divinité tey était était effectif descente boobu foog mu am foog mu am parce que yonent bi tey mooy tëj jamono mooy ubbi jamono mooy tëj waaw mooy tëj mu ngi woon si maam aadama ala kuli alin axaru mi tamit day dellusiwaat si beneen jëmm moo tax mosquée de la divinité asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu ok euh, jërëjëf mbokk internet euh, tey loolu moo nekkoon waxtaan wi tey donc euh, dig daje bi dafay nekk samedi le 25 ci biir weeru koor gi la ñuy fekk la ñuy fekk ku ñëw na nga sol yëre bu weex 9h tàmbali tàmbale ñu julee tàkk sama pare def ñaan yal nañ si yàlla yóbbu ak jàmm incha allah ñu fekk ko ay fekk ay ay at yu bëree bëri te tam bi tam génnul euh, ndaw ak jàmm jërë ngeen